juróom-ñetti at si njiiteelu fédération sénégalaise bu basket Babacar Ndiaye daal dina présenté bilan am. statut international sénégalais dafa changé. en deux mille quinze bi ñu gagné dañoo joxe appartement ak dix millions plus les primes les primes yi rek dépassé woon na trois millions. donc hôtel cinq étoiles la ñuy la ñuy la ñuy logé di am ay prime ay millions. à Dakar Arena loolu aussi bu ñu fàtte ne ñu ngi ko construire bi ñu gagné en deux mille la ko état bi construire. moom sax candidat la si élection yi ñu dëgmal te nag daal na wax luy programme si biir troisième mandat. suñu sañoon sax war nañ mën a organiser afro basket à Dakar à Dakar Arena ak góor ñi pour pour pour gagner amaat ambition aussi de def professionnalisme si basket loolu si première division créer championnat de deuxième division d'élite fexe aussi fédération sénégalaise de basket am siège. maître Babacar Ndiaye daal dina wedd ay tuumaal yi nga xamante ne ñenn ci acteuru basket sénégalais daal dinañ teg si kaw ndoddam ñu waxoon sax que basket Sénégal jamono ji dafa daadi di suux. waaw li ma jàpp ni rek mooy ñi nga xam ne daal dañ jàpp ne basket dafa nekk ci crise ñooñu ñëpp di wax kenn du leen gis ci euh, assemblée générale bi euh, tey jii nag euh, ñoo ngi ceek ay ancien gloire ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay club si les élections président sortant bi di xam na ni que lu ëpp ñaari fukki club moom la ñuy jàppale te nag moom Babacar Ndiaye nag dina si jàkkaarloo kii di mamadu Keita di président wu Guédiawaye basket club mu bokk si convergence pour le renouveau du basket sénégalais assemblée générale bi dinañ ko amal samedi ñaari fukki fan ak juróom-ñaar si weeru mai atum 2023